bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci wàllu xarale wi seen mbokk Adja Issa Sud seen rajo ci seen jataay yi tafsir mi leen defal ajjuma jot ci waxtu wi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 aaye vingt-neuf muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ko baaxu di defee mooy jàng al aaya door ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki aoudu billahi min asheytaan rajim muhammadun walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud dalika mathaluhum fi tawra wa mathaluhum fi l injili ka zarin axraja sat'ahu fa aazarahu fastaxlasa fastawa axraja sat'ahu fa aasarahu fastaxlasa fastawa ala suuqihi yucjibu surra fastawa ala suuqihi yujibu surraa liyaxiisa bihim alkuffar wacada allahu alladina aamanuu wa camilu alsalihati minhum magfiratan wa ajran cadiima sadaqa allahu alazim wa ballax rasuluhu alkarim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 yàlla na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yu réew yi ko wër tabaarakallaahu noo ngi ci saar wi noo ngi ci aaya ji tey war a nekk suñu juróom fukki lu ak ñett cinquante deuxième dars waaw cinquante deuxième dars juróom fukkeel ak la cinquante troisième ngeen baal ma juróom fukk ak ñett juróom fukkeel beeg ñaar ñu ngi doon toll ci yonente ba alayhi salaam ñibbisi na Badr ñibbisi na Badr xeex na du mën du mën a Quraysh ak la Quraysh indi woon lépp mu boole leen duma sallallahu alayhi wa kon ñu ñëw ci beneen tomb muy annashaatul askari bayna badar wa uhud njaabal mi ak waajaay wi xew diggante badar muy première guerre ak uhud muy deuxième guerre xare boobu alayhi salaatu salaam jóge te di xareem bu njëkk digganteem ak mushrikoona yi ci àdduna si yëpp xam naa tuuti kon mu tudd guerre mondiale wala sax tudd na ko waaw way xam yeeg way bind yi ñoo ko bindut ndax guerre ba gën a yaatu gépp bépp guerre boo dégg muy guerre boo xam ne diggante muslimoona yi la woon ak mushrikoona yi résultat yi am ñu métti ci pénc mi métti goo xam ne foo ko takk weesu na ko bu nu demee ci alquranul karim ci saar wu tudd almaida ci aay ja toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar sunu borom subhanahu wa taala ma nga nuy wax ña gën a mer ci résultat ya audu billahi min asheytaani rajim la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lillazina amanu lyahud la tajidanna adan ashadda annaasi adaawatan lillazina amana alyahuuda walladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu alladina qaalu inna nasaara dalika bi anna minhum qissiisiina wa ruhbaana wa annahum laa yastakbiruun sadaxalawul asim sunu borom nee na résultat yi xeex boobu ak duma gi yonent bi duma mushrikuuna ak bég gi ci waa Madina bég ak général bii di sallallahu alayhi wa sallam nim jiitee woon guerre bi wommat ko ci luwaa yi guerre am moytu yi ko luwaa yi guerre moytuloo du reyug màggat du rey gone du rey jigéen du saaga du màbb jàkka soo ko dee tubarkal la su ko dee lim bari na mu ñëw duma nag am fay fan jóge fa nag ñibbisi Madina ma jën gépp gàtt na ko ki sar xolle tabarkàlla ak ki ñaan waaye yàlla nee na am na ñum naqari lool ashaddu naasi adaawa mooy mooy ñan lillasiina amanu alyahud la tajidanna ashadda naasi adaawata lillasiina amanu alyahud ne boo gisee boo dee wër danga fekk ne ñi gën a bañ jullit yi ci kaw suuf gëna a naqarlu ca xeex ba gën caa am métit matt seen baaram mooy alyahud ñoom muy benn wala sina asharku ak mushrikuun yi koy bokkaale ci pénc ba mu ne ña ca tane wala tajidannahum aqraba mawadda ña ca tane mooy ñi nga xam ne nee nañ ñoom ay nasaraan lañ yàlla mu ne nasaraan yi am na ci xisiis yi na am na ci baan muy seen ñaari jikko ñetteel balaa yastakbiruuna ñoom rëyuñu maanaam boo leen convaincre ñu ne la tout à fait waaw nee na ñoom sax yàlla mi ngi wax ba tey koo ci waar jàngal ko alquran rongañ yëg génn ndax dañoo xam àq ctt waaye problème bi mooy nag kañ la alxuraan di àgg ci ñoom bu fekkee lëndëm lëndëm yi ak miiru kumpa yaa ngi ci diggante bi miiru kumpa yi dox diggante jullit yeeg ñi ci pénc bi kañ la miiru kumpa yooyu di dañ waaw kañ lay dañ ji daarul xay bi kañ la miir boobu di dañ bu dañee rek li yàlla wax nga gis ko xissiisiina ruhbaan laa yastakbiruun wa isaa maa unzila wa isaa samicuu maa unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min aldam mimma arafu min alxaq malheureusement def nañ fi ay miir miir kumpa yoo xam ne mi ngi dox diggante lislaam ñi ci nekkut ndeysaan waaw tabarkalla sunu mbokk mële ca Louga mooy mooy indi terme bu am solo boobu waaw sa si Ahmed Tidiane Fall yàlla na ko yàlla gën a sàmm bi leen loolu méttee bi leen loolu méttee ñi ngi tàmbali nag nekk ca dëkk ba di ko métitlu te nekk ca dëkk ba di wax lu tax alayhi salaatu wasalaam victoire bi bii xajam loolu la al yahudu nekk moo tax bani salim beneen xaswa am muy xaswatu bani salim bil kudr ñoom it jël seen wàll ca ca yëf ya bi yonent bi déggeelul ci ñoom xeetu yahud lañ mu ànd ak ñaari téeméer tey àndut ak ñetti téeméer ñaari téeméeri gawar la àndal wuti dëkk ba ñooña samp seen xel bàyyi fa lañ amoon waaw wa tarako fil waadi xamsi mi'at ba'ir ñu daw bàyyi ca gëti gañ dëkkoon juróomi téeméeri giléem soldaari madina yi ñëw teg ci seen loxo yonent ba alayhi salaam séddale ko ginaaw bi mu génnee un cinquième ñu ne asaaba kullu rajulin ba'iray ni waaw tabarakalla ku ne am sa ñaari giléem hmm? ndeysaan yonent ba bu ñuy séddale mu am xale bu tudd yasaar mu goreel ko ne ko demal nga ñibbi yonent ba am fa ñetti fan ba lépp ne tekk waaw tubarkalla am na mbër mu daan bëree ndeysaan bu ma sànn daan nit day wax nañ ko foto ba noppi mu door a wàcc waaw tubarkalla wàcc ma daan naa la wóor ku daan kow lay féete <laughs> yonent bi aqaama fi diyaarihim thalathata ayaamin summa rajaa ila al madina duma leen ba noppi toog fa trois jours door a walbatiku nag dellu ilal madinatil munawwara salawaatullahi wasalaamu alayhi loolu laa nga am ca korite wa ca atum ñaareel ma ca gàddaay ga waaw ba mu jógee Badar une semaine rek la am daal di delluwaat ca foofa ba muy dem ma nga bàyyi e, subaa ibnu arxata am ñu ne ibnu ummu maktum la fa bàyyi ci madina ndax bi daan xare ji day am ku ñuy bàyyi ci madina mooy jiite jàkk ji ak yu ne demee tabaarkalla maa ngi ci suratul Fatih ay 29 Muhammadun Rasulullah noo jàng dundam gi kon jàng dund ak siira lay tudd tabaarkalla Oustaz Alioune Mbaye <laughs> ma ñëw ci beneen tomb mooy muamara muamara li ixtiyaali nabi muamara mooy lali pexe lali pexe ngir rey alayhi wassalaam te yàlla ne ko wallaahu yaasimuka min annaasi kon kenn du ko rey waaw wallahu yaasimuka min annaasi daf na ko doxal boo amutoon kuy sécuriser sa jataay it man yàlla doy naa la sécurité doxal wallahu yaasimuka min naas bu tax léeg-léeg ab oto romb la ñu bind ko ca affaire bi du bind gi ci boppam waaw nga bind ko ci oto ba ba noppi oto ba accidenté ne ca mbooy ga danga xam ne kon oto bi yëf yi du bindu oto bi ci boppam rawati nag ñi bind yaasi mukaag léeg-léeg ñu def kook siin léegi <laughs> léeg-léeg nga romb oto ma ne sëñ Mbàkke si la waaw gis nga kii li mu bind mu ne ma kii di wal ca daara ja ndeysaan gaa ñi tàmbali bëgg a def ixtiyaal ixtiyaal mooy fas yéene rey yonent bi alayhi salaatu salaam waaw makka ña nga ca pexe ya madina mboolem yahud yi ñu ngi ci pexe yi mushrikoon yi ñu ngi ci pexe yi waaye bi ci gën a yéeme nag mooy bu euh, safaan ibnu umayya ak benn xaritam euh, umayr ibnu wahab ñu toog benn bis rek Safwaan ibnu Umayya daat ne xaritam bi man ne leen rekk ma jaaxal mooy bor yi ma am bor yi ma am te xam nga ñoom nekk cedd du leen te sàmmoonte ki bor ak ragal li bor mu ne ko suddutoon ak bor yi ma am de danaa jóge Màkka dem Madina reyal leen yónnent ba te ñibbisi Umayr ibn Wahab ne ko limal ma sa bor yépp gàdd na ko limal ma sa bor yépp ma gàdd ko mu limal ko borom yépp mu ne ko gàddu na lépp doxal waa ji daas jaaseem tooke jaasi ja wuti Madina jóge màg ñeenti téeméeri kilomètre ak lu topp fu mu jëm fa mu jëm mooy dafa bëgg ba demee almadina xus ci nit ñi dem ca biir fekk fa alayhi salaatu salaam pour mu rey ko acca mu jóge fay dugg ak wàcc di yéeg ak wàcc ba agsi almadina bi mu tëll bi mu ne tëll ci penc mi fekk ñoom amarul xataab ñu ngi toog di waxtaan Omar da ko xool rek ndax dégg ngeen farasatul mu'min yonent bi moo ko wax Omar da ko xool rek ni kii doxul jàmm waaw allahu da ko xool rek ni kii doxul jàmm daal koy lekk lekk ko mooy leroog moom daal di ne gaa yi informé leen yonent bi ne leen ko am na ko fi ñëw koo xam ne kii doxul jàmm daal wut ay gaay ne leen nag léegi sécuriser leen ko lu raw li ngeen ko defoon ndax ab sëriñ kenn du ko bàyyi mu toog moom dong waaw ñu koy bàyyi lekk ko ndànk rek leroog moom daa dem nag wax ko yonent bi alayhi salaatu mu ne bàyyi leen ko mu ñëw hii waaw bàyyi leen ko mu ñëw gaa yi lekk ko mi ngi bokk jaaseem gàddu gàddu jaaseem kon agsi daal toog ci wetu yonent bi alayhi salaam yonent bi ne ko ah, waaw ñëwal mu ñëw bi mu agsee toog rek daal bi ay bi imu ay imu sabaaxan waaw maanaam sunu nuyoo yii rek waaw mbaa jàmm ngeen fanaane wala agsi rek ne ko jokkonjal wala agsi rek ne ko bonjour maanaam suñu xeeti nuyoo yi ki yàlla yónnee woon ne ko qad akramana allahu bi taxiyatin xayrin min taxiyatika yaa um yaa umayr bisalaami taxiyati ahlil janna loolu la ko wax mu ne ko yàlla wutal nanu nuyoo bu gën bii nga ma nuyu teñ ko daan nuyoo lu jiitu lislaam nuyoo bi nu yàlla jox mooy nuyoo bi waa aljanna di nuyoontee mu bëgg di ko nuyoontee ba baa ñu fay dem te mooy assalaamu aleykum ne ko Umayr luy say tànk loolu la yonent bi laaj waa ji luy say tànk mu ne ko sama rakk lañ jàpp ca badar moom laa bëgg ngeen dimbale ma jox ma ko ma delloo ko yonent bi ne ko ah jëli sa rakk juñ jàpp ci xare lu ci gàddu jaasi doon <laughs> sallallahu alayhi wa waaw xam naa Sadikh ñaar dana kontaan ci question boobu waaw waaw jëli sa sa rakk ju ñu jàpp ca gare xare xare ba lu ci gàddu jaa si doon hmm? mu ne ko xanaa day jaas ju tekkiwu dara rek waaw jaas ju tekkiwu dara yonent bi ne ko nangoo góone yàllaa ma yónni ba léegi waa ji di ko xool mu ne ko li nga wax nii indiwu la négal ma wax li la indi yaag Safwaan ibnu Umayya toog ngeen ca keppaaru Kaaba ga di waxtaan ba seen xel dem ci ñañ rey badar boole leen ci mpax suul nga ne safaan dugun ku nag sama bor yii danaa jóge màkka gi dem madina fekk fa muhammad rey ko ngeen noppalu kooka gàddul la say bor nga départ wut si ma loolu mooy li la tax a jóg waaye jël si sa freer sa rakk juñ jàpp ci prison bi taxulaa jóg Umayra ne ko sedd naa ne yàlla la yónni di san ashhadu annaka rasulullah seede nañ ne yàlla la yónni yàgg naa laa weddi waaye tey gëm naa la xibaar yi lay ñëwal mi ngi joge asamaan loolu gëm naa ko lépp lu wàcce ci yow ab wax yu la gëm naa ko ndax lii ma lay nga ma nettali nii ku dul maag safwaan fekki woo ko ku dul maag safwaan fekki woo ko fa wallahi inni la alam ma bihi illa allah mu ne ko lii ku dul yàlla mënula koo wax ab journaliste fekkiwu ko mukk jàmburu fekkiwu ko mbokk fekkiwu ko man safaan ñun ñaar képp ñoo ko fekk kon bu xibaar bi ñëwee fii nga nga nga yëg ko am na leneen luy wax ak yow kudul kudul kudul kudul nit daal ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah ndeysaan saaba yi daal di tàpp-tàppal ñëpp daal di bëgg waa ji daal ne kon nag fa alhamdulillah allasi hadaani lil islaam wa saaqani haazal masaaq mu ne maa ngi sant yàlla mi ma dugal ci lislaam te teg ma ci yoon wi ma teg ba mu bokk ci waaw yonente bi aleyhi salaam daal ne leen faqihu axaakum fi diini dem leen ngeen jàngal ko mbirum diineem nu ñuy sangoo nu ñuy jàppe nu ñuy jullee dem leen ngeen jàngal ko yooyu daal di koy affecté benn ustaas ne ko ngeen jàngal ko alxuraan waaw te itam rakkam jooju mu ne dañ koo jàpp ci guerre bi ngeen bàyyi ko bu ñuy ñibbi ñu ànd ñibbi allahu akbar mbokk yi tomb yii nag ci wàllu ku dugg ci diine njàng mi waroon naa daj pénc mi ku dugg ci diine dangay jàng sa diine allahu akbar daf ne jàngal leen ko diineem kon ku dugg ci diine dangay jàng sa diine waaye nit ku juddu ci diine màgg ci yaru ci te lim ci xam lim ci xam allahu akbar matul pour cent lim ci xam matul pour cent lim ci pratique matul trois pour cent li muy pratiquer la ca sell matul nangam la la la Cheikh El Hadji Malick waxoon tabarkàll waaja mu ne teey leen waaw li ñu téere yi nekk ci àdduna si li ci ñëw ci réew mi tuuti la waaw mu ne tuuti joo ci ñëw liñ ci jàng tuuti la loolu ñu ci jàng liñ ci dégg tuuti la liñ ci dégg lu tuuti loolu liñ ci jëfe tuuti la lu tuuti loolu ñuy jëfe li ci sell bariwul cëy mag ñépp ko ne téye sa sikkim ndax yéemu ci wax jooju kon ku dugg ci di ku dugg ci diine dangay jàng sa diine doomu aadama deful ci kaw suuf lu gën jàng diineem ba xam ko di ko pratiquer te di ko sellal waaye tabarkàlla toog ci mbooloo ñu jox la jukki mënoo jël jox la jukki mënoo jël ne la liqaamal mënoo ñu la noddal mënoo ñu la sangal néew bi mënoo ñu la jullee ko mënoo ah waaw si diina daal daara daara daara tabarkàlla waaw te jàng nga mbirum àdduna ba mokkal ci lu bare bari te njàngum àdduna ku ku màggat mu bàyyi la njàngam àdduna ku màggat mu bàyyi la maa ngi ci suratul Fathi aaya vingt-neuf muhammadun rasulullah noo ngi ci diggante badar ak uhud an saatul askari bayna badar wa uhud oustaz Cheikh Ahmed Tidiane bi tey ma ñëw ci beneen tomb muy xaswatu bani xuynaxa waaye balaa may ñëw tam ma balaa may ñëw waxam naa sànq kon ñett yooyu ba ci jiitu kon mooy nit day jàng diineem bu ñaaral ba yonent bi na jàngal leen ko alxuraan xam nga soo seetloo waa ji kon mën naa dugg ci diine ji tey am ñum raw abo ah waaw mën naa dugg ci diine ji tey am ñum raw nettali woon naa leen xale bu jigéen ba ak farwa farwa daa bokkul ci diine ji ñëw ne ko dama laa bëgg ñaan si comme jabar mu ne ko nun ay jullit lañu du nu sëy ku dul jullit wax na dëgg nag farao ne ko kon baax na bëgg gi ma la bëgg de kon dana ma puusi ci ma gëstu seen diina ji su ma doyee ma dugg ci su ma doyut ma bàyyi la yàgg diina ji commencé di gëstu ci diina ji laaj boroom xam-xam yi question bu ne ci bopp bi mu laaj ko bam mu leer ko naññ mu dem ca imaam daal di dugg ci diini ji daal di dellusi ci ndaw si mu ne ko naka mu mu ne ko ah, dugg naa ci diini ji de waaw waaye yow moom bu fekkee nii ma la gis nii maag yow ñuy ànd la yow duggagoo ci diini ji kon nag man maa ngi wuti keneen ku ci dugg waaye yow moom tawarkal la kon li muy tekki mooy dafa dugg ci diini ji rek daal di raw ndaw si dafa dugg ci diine ji rek daal di raw ndaw si lu tax parce que dugg na ñu jàngal ko diineem jàngal ko la alxuraan mbokk yi jullit bu nekk ci àdduna ba xëy yi génn àdduna àggoo tabat ya daa waxuma laa lii laay fi Quraysh ndeysaan defe naa dégg ngeen ma maag suma ajaab ma doon wax jàngal ma xul yàllu ci aj màkk ga mën na ko bàyyil bañ dem senegal aka faa bari demum màkk mi baax na waaye jàng sa diine loolooy sa farata boo xasee dem benn yoon demaat gi la ngay demaate demal ca daara ya jàngi hmm? ujaaj yoo xam ne boo duggal ci seen biir boo taseeb kaamil lay jël dumat fukk lay jël dumat fukk laaj ko ñu yóbbu ujaaj ji kon safwaan safwaan nekk ca màkka di xaar umayr xam naa bu ñëwee dana indi bopp bi yonent ba <laughs> bu ñëwee lii lay indi rekk léeg-léeg mu gis nit ne ko waa yow téggoo fi umayr ba am ñu ne ko umayr day aslama dugg na ci diine ji safwaan xarit bi ne duutuma wax ak moom ba baa may faatu bor ya ma ko gàdduloon duma ko fay loolu la daal di wax waaye xamul ne booba jullit yi boo duggee ci diini ji te yori bor kenn du denc lu fay bor ya mukk ni tey jël xaalisam ci lox ci poosam fayal la bor yi ba mat ndax ak jaamu yàlla la koy def laaj ko Ousmane bin Affan radiyallahu taala anhu ci jëfam yore ya ci ci xaalisam ba Umayra daal di dellu Makka aqaama biha yad'u il islaam mu dellu Makka ndeysaan samp daaraam ba dugal ñu bare bare bare ci ci diine ji ba dama ca siiratu ibnu hisham ca jukki bu njëkk ba xatum juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci la indi nettali boobu nga xam ne mooy kooku bocci woon jaaseem jóge makka ñëw ba madina ne daa bëgg a rey si sallallahu alayhi wa far euh, yonent bi wax ko lu ko dugal ca diine jë day sànn salla aleyka allahu ya alamal huda kon xaswatu bani xuynaqa bani xuynaqa ay yahood lañu woon yoo xam ne ki ñi gën a bañ alayhi salaatu salaam ci kaw suuf ñoom la ñoom la ak ñu ko bañ ni nga ko déggee léegi ci la tajidanna ashadda annaasi adaawa lillazina amanu al yahud wallazina ashraku ñaari groupe yooyu ñoo gën a bañ yonent bi ñoo gën a bañ jullit yi waaw al yahudu wallazina ashraku kon bani Xuynaqa ñu ngi noonu lépp loo xam ne xam nañ ko ci fitna ak musiba ci pénc mi bu nu xëyee ci la ñuy xëy am na mel ni pexe muñ masalal pexe ma mooy fexe ba jullit yi jàkkaarloo di joxoñantee baaram loolu ba bani xuy na xaa ñoo ko fexe woon maanaam fexe ba jullit joxoñ moroomu jullitam fexe ba jullit poñe moroomum jullitam fexe ba ba ma xënte am ndeysaan fexe ba ba ma xënte am waaw te naa so xëccoo am ñun ñoo leen njëkk a dugg ci diine ji ñun ñoo leen def nangam ñun di woy sunu baay ñun di woy sunu maam ñun di rek tabarkalla ba ngànnaay tàmbalee génn maanaam ngànnaay tàmbalee génn ba nga xam ne xeex rekk ci des sallallahu alayhi wa sallam daal di génn jàkkaarloog ñoom ñu ne yaa machar al muslimin allah allah abi daawa al jahiliya wa ana bayna azharikum baad an hadaakum allahu lil islam waa akramakum bi wa xattaa bihi ankum amra aljahilia wa stangadakum bihi min alkufr wa allaf bayna qulubikum discours boobu la yonent bi wax keroog bi mu génnee jàkkaarloog jullit yi nga xam ne ñi leen bëggoon a jaxase bëgg leen a sookale mooy bani xuy naqaa mooy euh, yahud yooyu bi yonent bi génn mu leen yéen jullit yi ee yéen jullit yi allah daan ni allah mu ñaari yoon lisaan waaw ñaari baat yooyu walla baat boobu baamtu ko ñaari yoon pour def miftaaxul xal bi pour xol yi ubbi ko waaw cër yi di lox xel yi di xalaat bi mu nee allah ni allah ñëpp ne tek mu ne waaw kàdduy ceddo yi ma dégg sànq nag waaw kàdduy ceddo yi ma dégg sànq muy kàdduy bàkkook fëgg dënn ci yéen ñi la jóge te demaguma fenn ndeysaan allahu akbar kàddu yi kañu yi ma dégg sànq ak bàkku ci yéen ñi la jóge te demaguma fenn ndeysaan ah ñëpp ne selaw di xoolante mu ne ginnaaw bi leen yàlla jubalee ci lislaam ngeen jóge ca la ngeen nekkoon ñëw ci lislaam yàlla terale leen lislaam li nekkoon seen diggante ci buumi ceddo ah, ak ndi kufru ak poñ poñooru sirk lépp mu raxas ko xettali leen ba ngeen mucc ci kufru tàppe seen xol yi tey ngeen xëy bëgg a def nii ah loolu dana ma bett ah gars yi door xam ne nazaatun min asheytaan moo naroon na am wa kaydun min aduwihim ñu daal ñu daal di yëgaat seen bopp waaw ñëpp génn seen musfaar jooy wa aanaqa rijalu min al awsi wal xasraj baaduhum baada waaw ñu lëngoo ndeysaan kenn ku ne akalaat morom ja waa waa aws ak waa xasraj nga xam ne ñoo doon xeex-xeex yàgg ya tabarkalla te Euh, yahud yi narloo naroon leen a boole cee waa ji li bii dars bu mokkoon darsu ki bokkul ci yëf yi ñëw di wax ci yëf yi ba waa yëf yi xeex waaw cey bii dars bu mokkoon sallallahu alayhi wa sallam ki bokkul ci yëf yi ñëw ci waa yëf yi di wax ak ñoom ba waa yëf yi xeex looloo nar na am waaye bi yonent bi defee discours am bu gàtt bi te am solo tax na ñoom ñu gisaat yoon wi daal di lëngoowaat nekkaat benn su man sarafoo ma rasulillahi daal di ànd ak yonent ba saamiina mutiina waaw topp ko ndeysaan mu yóbbu leen ñun ñibbi pexe moomee yàlla naax saayal ko Shaas ibnu Qays moo ko fexe woon ba dama ca sirtu ibnu Isaam ca jukki bu njëkk ba xatum juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ci lañ indi woon namuzaj min makidatil yahud loolu yahud yee ko doon fexe ndeysaan pexe moo musu jàlloon pexe moom musu jàlloon ba aw sa xasraj ñi àndoon badr te yonent bi miinale woon leen bu pexe mu jàlloon pexe ma du bokk ci liy defar moo tax ñooñu nga xam ni ñooy yahudu bani Qaynuqa lu ñu mën ci def rek yàq rek daañu ko yàq maa ngi suratul Fath ay vingt-neuf muhammadun rasulullah maa ngi ci annasaatul askari bayna badr wa uhud banu xaynaqa yanqudun al ahd waaw ñoom bu yonent bi bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee dafa am la mu siñeent woon ak ñoom nañ dundee nii article un nañu def nii article deux ba def ko seize article seize article ci benn règlement intérieur boo xam ne bi moo leen di moo leen di ja moo leen di lënkali ñoom a pénc ba ñu def ko benn laïcité bu positif waaw laïcité bu positif mooy dund leen seen diine ni mu leen ko waxee cent pour cent bàyyi ñu dund suñu bos ñun tam cent pour cent mais du ngeen ñu du ngeen ñu yóbbu ci seen bos ba noppi tudde ko laïcité waaw mu ngook léegi loolu lañ doon doxal keroog bi yonent bi alayhi salaam jógee Badar nag ñëw ak victoire ba aha gaa yi tàmbali bu nuut yooyu mu séqoon ak ñoom muy règlement intérieur boobu wala boog muy pacte boobu ñu siñante wala tabarkalla lu ñu demee jubbanti leen ma euh, macha allah yonent bi tiim leen ne leen waa Banu Qaynuqa mu fekk leen ca marché ba ne leen yaa ma'shara yahud aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaaba quraysha <laughs> loolu leen wax yéen yahud yi ñëw leen ngeen dugg ci diine ji balaa lii dal quraysh dal leen ñu ne ko yaa ngi bëgg waru nag ñu ne yonent bi yaa ngi bëgg a waru ah du ko ah mbaadu yow yembar yi nga xeexal moo tax nga defee ne yaa mën ñëpp <laughs> waaw lañ ko wax mbaadu yembar yi nga xeexal nga moo tax nga defee ne ñëpp ubboo làmb ji de parce que ñu nga dajal du ñu ay du ñu ay góor <coughs> mukk yow ay ay yaafus nga dajal boo dajeeg ñun da xam ne la ay yaafus nga dajeel loolu lañ ko wax waaw loolu lañ ko wax cttt ñu jàpp ne kon loolu ñu ko wax mooy defe ne rek buñ taseeg yonent bi alayhi salaatu salaam danañ ko mën a Euh, danañ ko mën a gañe ñu ne ko ñi nga daje laa yaarifuuna alxitaal innaka law xaataltanaa la arafta anna nahnu nnaas boo taseeg ñun ci ngay xam ne ñun ñii ñooy góor wa annaka lam talqa mithlana bu ëllëgee dootoo dajeeg ñu mel ni ñun sunu borom ne jibril kaay nga dem kaay nga dem aoudu billahi min alsheytani arrajim qul lilladina kafaru satuxlabuuna wa tuxcharuuna ila jahannama wa bisa almihaad qad kaana lakum aayatun fi fi'atayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fi sabilillahi wa uxra kaafira wa uxra kaafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yashaa inna fi dalika la ibratan li ulil absar sadaqallahul azim waaw loolu leen alxuraan tontoo bi leen yonent bi ne bu ma leen jàppee duma leen ñoom tam ñu ne yonent bi ñun tam buñ leen jàppee duma leen yonent sunu borom ne jibril kaay dem nga ne nga ne yonent bi xul waxal lillazina kafaru sa tuxlabuuna daañu leen duma wa tuxcharuuna fang leen fang mooy dajale leen ilaa jahannama yéen ñëpp ngeen dem sawaru jahannama wa bi'sal mihaad te it xad kaana lakum aaya war ngeen a jàng ci xare bi weesu muy bu badar xad kaana lakum aaya fii fi ataynil taqata waaw ñaari ñaari mbooloo yu daje woon barki démb muy muslimoona yëg musrikoona war ngeen cee mën a jànge ndax mbooloo mee tuqaatilu fi sabilillah mbooloo mee kaafira mbooloo mi nga xam ne kaafira bu ñuy xool mbooloo mi nga xam ne moo nangul yàlla dañ leen di gis ra'yal ayni mislayhim maanaam fi ne bi Badar amee trois cent ñoo demoon trois cent treize léegi nag professeur ji bi moom nga multiplier fois deux waaw muy six cent je pense que noonu la six cent euh, vingt six waaw loolu nun leen ko yàlla defal ra rayal ay ni wallahu yu ayidu bi nasrihi man yasha yàlla mooy dimbale ci dooleem ku ko neex inna fi dalika la ibra lii am njàng de li ulil absaar ñi am xel war nañ ko am kon yéen yahood yi bu leen di dëkkati gaa yi mbokk yi beneen bi ndangu noonu fii xayaatihi sallallahu alayhi wa te boroom xam-xam yi bind ko waaye dundam gi léppam di njariñ ci xeet wi ci pénc mi jéggulu soxna yi jéggulu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër bàyyi leen ak alxaaji sëñ Mbàkke Sylla ci kanam tuuti tabarakallahu ci seen jotaay bii di xamtu tabarakallahu jaajëfal suñu technicien bi eh, Adja Isa ñaanal ko tawfiix waaye jaajëfal suñu sponsor eh, lobbu maam jaara yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga àndaloon ci tafsir bi moo di seen mbokk Alioune Sall wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.